Faites les enquêtes qu'il faut mais, mais, mais, et diligentez tout ce qu'il y a eu dans ce pays-là comme meurtre, tout ce qu'il y a eu dans ce pays-là comme saccage, tout a eu dans ce pays tentative de déstabilisation loolu yëpp leeral leen ko de. c'est le moment. xam ñun boo ñu dégloo rek ñun fi ñu jëm xam nañ ko te ñime nañ ko parce que xam nga ñun bi ñuy taxaw fii di wax li ñu xalaat boobu la coow li gënoon a bari te doon nañ ko wax. boobu la pression bi gënoon a bari te doon nañ ko wax maanaam lii dëgg mooy man dama gëm vérité d'abord soo ko dem ci réconciliation man Imam Dramé loolu laa gëm. mais y' a pas eu vérité y' a a permis non loi euh, de la liberté et à tant d'autres. vérité. sëñ bi du alxuraan du bible. waaw mais y' a vérité. dañuy waxtaan loi d'amnistie. Hmm. ay nit a ko xalaat rek teg ko. lu lu loxo def loxo mën na koo dindi buñ gisee ni parce que may mun na nañ wax ci moral nit boo ko tooñee il faut nga nga nga nangu ni danga koo tooñ bu lay baal mu baal la am na lu état moom am na lu nit ñi moom président Ousmane Sonko daf ci wax lu leer bi mu génnee danañ dégluwaat sorte bi mu wax dani fayantoo du fi am fayantoo du fi am maanaam teg nit lu dul dëgg du fi am waaye vérité dina am. vérité bi anamu. ah vérité li ci kanam rawatina vérité bi tabbi na géej ak cette loi d'amnistie là. vérité fa mu am non xam nga vérité mu ngi commencé xam nga may mu na. man débat bi boo gisee li ma ci gëm rek laay wax man man suñ ma joxoon réew mi yow xam nga ni man homme de dialogue la man dialogue rek laa gëm ak waxtaan ak cohésion sociale mais am na sénégalais yoo xam ni dañoo mérité xam kan moo rey seen frère. bu ñu ko xamee ne bu pare bu ñuy baale ñu baale. ah bon ah oui. <laughs> mais loolu laa gëm mais loolu laa gëm man. ah bon mais loolu laa gëm may mu man man mii di waa yow. man am naa hmm. sama jarbaat yoo xam dañoo faatu ci xeex bi bëgg naa xam ku leen rek donc yow jàpp nga ne. Mhm. dañu war a malgré la la la loi d'amnistie yow da nga jàpp ne dañoo war a dellu si waat ci ci ci loolu yëpp. non man daal li ma gëm xam nga mbir mi sunu état bi yow xam nga ne ñu bëgg xam xam ko. fii li taxoon mënuñoo xam dara Macky Sall la fi nekkoon jël dossier yi teg ko ci coñcam. non la dem si y euh, dama lay wax xam nga man dama baax nga bàyyi ma rek ma wax li ma xalaat. waaw ah. parce que man sénégalais yi leer na ma ne ñu may déglu te lii may wax ni naqariwu leen mais yow xam nga ne état lu mu bëgg xam ci 24 heures da koy xam te naqariwut a xam sujet boobu bëgguma ñu taxaw ci parce que day jël suñu temps man li ma ci gëm wax naa la ko xaw ma lu ci guvernement bi di def yaa ngi dégg waaye man Imam Dramé li ma diina jàngal mooy nit bu tooñee na reconnaître ni dafa tooñ ba pare yaa ngi dégg buñ koy baal ñu soog ko baal. mais ñi doon support. ñi doon balaa muy jël suñ temps ñi doon contre la ne si dañoo waxoon vérité et réconciliation après. xam nga bu ñu wootee loi d'amnistie mais loi d'amnistie bi dafa am dafa am dafa baax ñu fàttali nit ñi li fi jaaroon. waaye xam nga bu ñu wootee loi d'amnistie bi bi ñu waxee ni ndax rey bi rey nit ñi bokk na ci wala bokkuñu ci. Ah, si biñ ci nam biñ ci ñoom biñ ci wax lu leer ñun dañoo voté non. tous les waaw voté ngeen non mais vous en avez bénéficié xam nga bu ñu wootee loi d'amnistie dañ ne mënuñu ci dara mais non lañ voté les événements politiques entre deux mille vingt le vingt cinq février deux mille euh, vingt quatre mm-hmm. amatul lu ñu fiy lëmbër ci kenn mënatu fee laal. man daal wax naa lépp effacé nañu. wax naa la ne léegi nag man dama bëgg nga wax ma nu ñuy def. Ah. ba ba ba ba ba delluwaat. xamaat est-ce que suñu constitution mayewul boo voté loi boo xam ne nii da ngaa yoroon sa majorité mécanique di ko imposer nit ñi yow boo demee ba mën koo soppi mën nga ko soppi. loi du dara loi du alxuraan du bible. Hmm. ay nit a koy woote rek. mais mais mbaa xam nga bi am na ñoom arrangé woon dañ boobaa. bu ñu remettre en cause la loi de Massi boo xam nga les implications. non dara man damaa gëm ni bu dee ñun suñ côté ñun lépp lu ñu def assumer nañ ko ñun résistance lañ def te loolu mu ngi suñu constitution. regretté wuñ ci dara. xam nga te bu ñu tegaatoon lañ ñu tegoon ñu résisté waat.